sadaqallaahul aziim wax assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu man Mouhamadou min sal may wax ci wa xadara bi yëpp xam nit moom su may wax ci làmmiñu xadara day bàyyi xel xadara bu mu nekk bi na suñu mag suñu sëriñ suñu waajur nga xam ne moo jiitu xadara bi mooy Thierno Ahmed Tidiane Sall ci làmmiñam la ñuy waxe ci làmmiñam la ñuy waxe lu ñuy wax li nag mooy woote bi nga xam ne bii yàgg nañ ko woote fii ci jàkkay Tukulóor mooy gàmm boo xam ne bii ñu koy def ci ndigalu Ceerno Seydu Nuur radiyallaahu taala anhu ci ndigalu xalifa Babacar Si mu muy gàmmu boo xam ne dafa am barke dafa am taarix loo gis looy def na ànd ak ndigal rawaat nag ndigalu nitu yàlla depuis 1953 la ñu wax ni ñun nañu yem fii ñu def fi gàmmu waaye xadara bi xam nañu ni xadara Seydu Nuuru la xadara alaji malik la kon nag ñoom waa Tiwaawoon ñoo ñu sant ndigal seen ndigal dañuy wéy di def fii gàmmu kon nag gàmmu bi foofu la jóge gàmmu bi doom la sët la ci gàmmu alaji malik bi radiyallahu taala kon nag ñu ngi yaay yàlla subhanahu wa taala ñëpp nañu ñu ngir yàlla woo wuyu woote lislaam guddi yonent bi sallam ku ci ñëw sakku barke la loo xam ne jaaxaloon na li sa dund yàlla mun na faj sa aado ngir bërëb bi nga xam ne bi ñu nga fi béréb bii képp nga xam ne teew na fi yàlla def na fi barke yàlla def na fi leer lépp loo xam ne bugg nga ko ci wàllu yàlla yàlla dina la koy may ngir barke ñi nga xam ne bi ñoo sos xadara bi ngir barke ñoo xam ne bi ñoom ñoo joxe ndigal bi kon nag ñu ngi yaar yàlla subhanahu wa taala bis boobu ak guddi boobu ñëpp nañu teew ngir ñu déglu tagg ñu tàggkat yonent bi sallam di tagg yonent bi waaye di déglu alquran ñu koy jàng waaye di déglu ñoo xam ne dañuy firi siira yonent bi sallallahu alayhi wa ci gàttal ñu ngi woo ñëpp nañ ñu ñu jàppale ñu doole ñu xalaat yonent bi salaam lépp luñ koy defal dafa war a rafet dafa war a baax kon nag lépp luy rafetal luy taaral guddi bi ak bëccëg bi soxla nañ ko loolu du doy yonent bi foo ko teg ci wàllu taar weesu na foofu foo ko teg ci wàllu mot weesu na foofu kon nag ñu ñëw rafetlu suñu ñëwee fii xëy na suñu jikku defaru ci yokku ci yàlla indi naataange ci réew mi ñu ngi sant réew réew mépp waaye di sant président de la république ni ab Macky Sall di sant mboolem ñoo xam ne ni ñoo ŋànk gouvernement bi lu mel ne ministre de ba ci gouverneur bi nga xam ne bii moo ko tegal ci Thiès wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoom alhamdulilah seen taxawaay mot na mot na sëkk bu ñu ñëwee ba léegi dañoo jig sunu mbir yëpp ci wàllu gàmmu bi yokk na kon nag foo ñu sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla loolu daal lañu ñu amoon loo xam ne di bëgg nañ ko génne message bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa Euh, man maay Alassane Ndiaye man maa yore commission communication bu gàmmu bi gàmmu Jaka Tukulóor euh, daan waaw ci wàccaay bi comme ni nuñ ko faral di def at mu ne ren tàmbale nañu depuis le 13 novembre mooy réunion boo xam ne moo dajale mbokk yépp euh, ci réunion boobu la ñu yee commission yi yi ci doon liggéey commission religieuse commission d'organisation commission communication commission moyens recherche des moyens et finances ñooñu commission yëpp boobu ba léegi ñu ngi liggéey euh, ñu rax ci dolli fan yi wër nañu organe de presse ak communication yëpp rajo bu nekk ak télévision bu nekk ci dëkk bi egg nañ ci yow yégal na le mbir mi am na egg nañ eggal nañ ci yow itam eh, benn documentation boo xam ne ni ko sëriñ bi waxee léegi mooy taarixu eh, eh, gàmmu gi taarixu gàmmu gi comme niñ ko nu mu ko waxee ci papaam lañu commencé Thierno sal Sall ci ndigalu kilifa yooyu mu wax ba jamonoy tey sunu kilifa sunu sëriñ Euh, son excellence na Ahmed Tidiane sal moo ñu jiite ànd ki rakkam ak i ak doomam donc ak i ñoom ñëpp nag ku ci nekk am na ay àndandoo suñuy pàpp amoon nañu ay àndandoo yoo xam ne ñu ñu ràññeeku lañu ñoo leen jàppale tey itam ñoom itam xam ne nuñ ko waxee am na ñoo xam ne ñi ay àndandoo ñu leen jàppale euh, daaw ba léegi nag am na lu bees de spécial dañ koy organiser organiser nañ ko. Euh, Euh, barki démb euh, ci nga xam ne gouver gouverneur ci boppam moo ko présider euh, gouverneur si moo ko présider ànd ak chef de service yëpp te engagement yi ñu jëloon daaw te motal ko ren jàpp nañ ne danañ ko gën a motal parce que nee na gouverneur ci boppam nee na CRD boobu muy organiser du cawar cawarte boppam rek président de la république ci boppam moo ko jox ndigal na organiser CRD bi xam lan mooy sunu yitte lan mooy sunu jafe-jafe mu def ko donc ba léegi euh, defar na CRD bi chef de service yu nekk ñoom ñëpp jël na engagement te yaakaar nañ ne seen cawarte ci ñëw bi seen cawarte ci engagement yi ñu jël incha allah nañ ko def niñ ko defoon daw euh, li ci dolleeku mooy euh, dimanche bu bii di ñëw ak fan yi ci ñëw nañ continuer organisation bi ni ko sëriñ bi waxee Eh, ñaan yàlla yàlla may ñu ñu fekke ko jàmm eh, comme niñ ko faral di waxee itam eh, gàmmu bi gàmmu ñëpp la parce que Thierno Abdoul Sall bi mu fu nekkee ñëpp la nekkandool fii nekkandoon fii wolof yi nekkandoon fii séeréer yi nekkandoon fii saraxul yi nekkandoon ñëpp te yemale ñëpp te bëgg ñëpp loolu mooy wéy ba tey donc incha allah niñ ko doon defee nañ ko def allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam waaw waaw si le signe de la paix et de sécurité mooy que tey euh, ni nga ko xamee euh, am na loo xam ne lii moo ëlëm àddina bi te loolu euh, ñun dañu jàpp ne ni ñoom sëriñ sëriñ yi niñ ko jàngale woon ku topp waxu yàlla alquran al karim ku jàngale diine ñoom yàlla may na mayoon na leen seen xam-xam dafa xóot te xarañ ci wàllu diine donc ak seen itam comportement ak seen attitude ñooñu ku gis suuf xootaat seen comportement ak seen attitude jàngale ko topp ko dara lu ay du am ci diine loolu lañ jàngale loolu la ñu nar a seen doom yi xam nañu seen i jikko xam nañu seeni i xam-xam xam nañu fi ñu jaar ak nit ñi ba nit ñi eh, nekk seen i wet eh, am seeni i xam-xam am seen xarala am seen amam du tere ñu nekk seen wet nekk ak ñoom jàmm jàmm jooju nañu xam yan pexe suñu toppee suñu waajur yi ak suñu kilif yi incha allah réew mi jàmm rek a fi xew.